et revenir dans 15 instants le jeune Assane Gawlo. fallu yaag say gaay maa ngi nii jàpp ci sama damel siri Amina la bi simi sa yaay Aliou Diouf maa ko loo mbokk ndeyu Pape Diouf de son vrai nom Assane Gawlo Assane Gawlo nañu gore gore ci boppam lay way maanaam am ngor euh, ci lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci sa àdduna Assane maa ngi lay nuyu. Boubacar maa ngi lay fay di la wax ni na mu trop. maa la raw mbaa yaa ngi ci jàmm. sant Serigne Touba bu baax. yàlla sant yàgg naka yi tey. waa ñu ngi door muy daanu rek. naka liggéey bi. lépp ñu ngi ciy door mu ngi dox daal. mais gars yi nee nañ ma yow chinois la est-ce que chinois la xoolal télé bi xoolal xoolal waa mais xoolal caméra bi euh, dañ ma ne yow chinois la. <laughs> ah ah est-ce que yow chinois la. <laughs> ah non non non non gisoon gisoon ni ma ñuulee xanaa. non non chinois mën na bañ a nekk ci ñuul bi ma nekk ci bët yi <laughs> ci gàttaay bi ci euh, kanam bi ci daggu gémmiñ gi daggu bakkan bi yëpp gaa yi nañ chinois nga xool caméra bi. loolu neex na loolu neex na boobu su yow suma waay nga ba loo wax rek naa ko accepté. ah kon yow chinois nga. Euh, <laughs> gars yi ne nañu xang nga tudd xang. mais sénégalais laa ñu koy wax Assane Gawlo. non non wuy ma gars yi ñu ne xang nga tudd xang. <laughs> mais <laughs> gars yi dañuy toj dañuy mbalag xam nga sénégalais yi ñoom ay mbalagal la dañuy mbalag rek wax ne ma mais booy xang dina ñëw ah xang <laughs> waa kase sikk mu naanaa sama doom ndey waa dëgg loolu moom ba mu jàppee yàgg euh. ah, di xeex ngir man moom moom daal sama nit la Sëriñ Xadi Mbay bàyyi jëli euh. nga xam ni lu yàgg rek dëgg la <laughs> ñoom waa Touba Sandaga euh. waa ruq ba waa pax ma ah, ah foofu foofu foofu ah foofu foofu bu si yombul de foofu kenn dafa wax lenn ku dul Assane Gawlo oh. <laughs> waaw yaay seen waykat maay seen waykat na fa loo duggee woon noonu nga fa duggee noonu laa fa xuusee ndongoloo noonu la duggee woon ca pax ma pax ma noonu laa fa xuusee ñoom caddi caddi ñoom soo ñoom Tafa Mbodj mais man ay marchand ambulant rek nga may wax nii de waaw ñooñu ñëpp samay gaay lan ñoom ñëpp ay marchand ñëpp dañu may bégee Jo du jaay marchand ambulant la soo so so so so businessman la businessman la est-ce que mënoon wax Jo de Jo businessman la waxal <laughs> no so <laughs> alors Assane euh, mën nga ma wax maanaam euh, morceau bi di gore mooy sa premier single. waaw mooy sama premier single. bu waaw saan euh, Gorée moom da ngay way ci ngor nit dafa war a Gorée. waaw ak lu mën di doon rek na nga Gorée boo wéetee da ngaa war a gore boo wéetali ko war a gore mhm. te lépp looy def ak sa diggante ak sa doomu aadama xool ci. ngor ngor mhm. ngor mu ngor mooy dugg mooy génn ngor mooy lépp ngor mooy lépp lu ci nekk rek ak lu mën di doon ngor a ko ëmb ngor a ko téye ngor mooy tax ba loo jàpp rek doo bàyyi bu su wayu wayu dafa sori ci man wayu dafa sori ci man ba tax na man bu ma koy diglu sax dafay so maa ko maa ko way mais man bu ma koy diglu man la gën a jàpp ndax dama koy yëg di ko sant sa yaram du daw yaram kenn parce que yonent bi waaw eh, yow lan ngay lan ngay def lan ngay yëngu ci Sandaga bourse man maa ngi marché Kermel. marché Kermel. fa laay laawee fa laay laawee. fa ngay laawee. fa laay laawee yow laveur oto nga. laveur laa de. laveur oto laa bourse. mais wuy ma. laawee oto ba am na xaalis. waaw dañuy dóor mi daan rek. xam nga gars yi ñu bëggee mër. léeg-léeg ñu ñëw. waaye man nag benn kii laa fay laawee côté sunu assurance. côté suñu assurance waaw sécurité sénégalaise assurance ba ASS. ñoom lay laaweel société boobu lay laaweel ñoom. ñoom ngay laaweel seen oto. ñoom lay laawee ah. ñoom rek lay laawee. noo mën a nekk laveur nekk waaw loolu lépp ci bëgg-bëgg la rek. dëgg la bëgg-bëgg bëgg-bëgg moo moo moo am solo ci doomu aadama. lépp looy def rek bëgg ma jariñ la nu nga ko gëm. Mhm. Euh, booy jaay gerte sax mhm. da war a gëm ne gerte gi moo la war a teral moo la war a defal lépp mhm. booy jaay laalo sax jàpp ne lii moo la war a teral man laavi bi may def jàpp naa ni mooy sama àdduna mooy sama lépp te balaa muy neex sax dama bëgg nga jaar fa ma jaar fa dama bëgg nga dama nga jaar fa fan yii jàll Pape Diouf jaar na fa. nga laawel ko ko otoom. boole ci mardi bi ma invité woon soirée am. ma ñëw euh, mu def loo xamante ni bii lu lu lu ma tis te lu lu kii la. lu yëg sa xol lu ma yëg sama xol la Pape Diouf te yaatu. day maalo Pape Diouf dafa baax kooku man maa ko bëgg maa ko tippoo maa ko appoo. Ah. moom séeréer bébé baas Baye Mouhamed. waaw nga ne dafay nga ne dafay way maalo Euh, ne ma Assane arrêté gars yi musique bi yëpp mu arrêté ko daan ne ma ñëwal yeeg waxal lu la neex. waaw loolu ba ma commencé musique ba léegi maa ngi yéeg kaw seenu artiste bu mag. Hmm. ndaanaan ku lu fàddilin mu defal ma loolu. dëgg la kooku di ko wax ni yàlla moo ko mën a fay te yàlla ko fay moom mi nga xam ne ku mu fay doorus te ku mu fay nga am ndam. ndeysaan moom Pape Diouf fépp fu mu bëgg a àgg yàlla na fa àgg ci kàttanu Sëriñ Tuubaa. dëgg la dëgg la euh, léegi yow li ngay liggéey di laver ay oto. Hmm. liñ la fay yëpp moom nga dem duggee ko studio. waaw. ah booy booy mbaa di nga dese dara. Ah, xam nga moom ñun laaweer yi ay ñun laaweer yi moom dañuy dóor rek boole ci man ma jàpp naa ne Sénégal yi ñëpp dañ may bégee. ndeysaan man foo taxaw dakaar ne Assane Gawlo. Uh-huh. nes tuuti ñu ne la mi ngi ne. dëgg la boole ci ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waa école bi Sib Info. Uh-huh. Imaxi ñoom ñëpp dañ may bégee. dëgg rawatina waa marché Kermel. dëgg la di bégee ñëpp di siyaar ñëpp. dëgg la. Euh, rawatina tamit sama xarit bu jigéen boo xam ne dafa sori ci man muy ajaat seen hmm. nga xam ne daf may dooleel saa su ne ah daf may woo ci roq di ma xelal di ma gindi di ma dooleel di ma gungee dëgg la te nit ku nekk am nga koo xam ne saa yoo ko gisee mu dooleel la demal ci buubs boo demee ci buubs rek jeex na <laughs> barke yeneen bi lu mu teg loxo moo gën te buubs yow xam nga ne <laughs> ah dama ne ku la tippoon ak jël ndaara de déedéet kay barke yeneen bi ndeysaan yow royuwaay nga yow bu ma lay dégg damay am jom bu ma lay dégg damay am fit ndax yow fi nga agsi nii fi nga agsi nii euh, te nag musuma laa dégg ci lenn li tax mu gën laa jàpp gën laa fonk musuma laa dégg ci lenn ah riir mi bari na trop waaye yow fi nga ne dégg fi nga ne dégg rek kon yow yal na yàlla fa cat amiin amiin am nga permis waaw am naa permis permis lan nga am permis poids léger quoi poids léger mhm. euh, transport en nag fi ne nag may dawalal sama bopp nag dégg li <laughs> maa bëgg ci yow <laughs> Assane maa ngi lay encouragé bu baax di la le mhm. di la félicité xam naa ni waa Kernel yow la ñu àndal waa suñu assurance yow la ñu àndal mhm. waa foofu noonu ñuy supermarché boobu nu mu tudd mhm. sécurité sénégalaise waa sécurité sénégalaise waa Sud Info foofu yëpp yaa fay lavé foofu yëpp maa fay bomb dëgg la laveur yi nag di leen wax ne am nañ waykat nag léegi laveur yi am nañ seen waykat am nañ seen waykat waaw ndaxte nag kuy wàlle yaa ni sa kër daa tëggul te muy dëgg ah te nag laa wéere Assane Gawlo ngi nii te mi ngi maa ngi xuus maa ngi ci biir maa ngi ci biir ëtt bi groupe dooleel Pape Diouf soo ba léegi ñu may message ñoom ñëpp dañ may béggee def ma ni seen bopp dëgg la Pape Diouf nee naa ko famille mooy sama man ci famille laa bokk mais Assane Gawlo ñu doole si chinois waaw defal la neex waaw gars yi ne da ngaa waaw defal la neex boobu su yow loo wax a gën loo deful <laughs> merci beaucoup Assane kontaan naa maa ngi man tam nga indi sama oto nga laver ma. defal loolu. waaw dinaa ñëw boo ko defee dina ma neex de. non loolu laay def. amul kontaan naa trop. bon courage.